ñaareelu fan ginnaaw bi SAED délégation bu Dagana tàmbalee nag formation bi nga xamante ni mi ngi ko jagleel pompiste yi yoon bi nag ñu teg tànk yi fi nga xamante ni moom moo di ci Richard Toll dajale fa nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu pompage yi fare nag ci fi nga xamante ni moom moo di diggante Mbagam Rosso Sénégal càggar ak Richard Toll yoon wi nag ki nga xamante ni moom moo di Mambay Diagne di adjoint directrice délégation bu Dagana ñëw na ci ay leeral ok jërëjëf madame je ngi leen di nuyu bu leen baax maa ngi tudd adjoint directrice délégation Saïd Dagana euh, comme nous nga ko nous avons rek tey dañoo Richard Toll pour weccoo avec ak organisation de producteurs yi euh, plus particulièrement les responsables d'irrigation et les pompistes des stations de pompage parce que Saïd, ñëpp xam nañ ko dafa am agriculture irriguée euh, agriculture irriguée nak moo gestion de l'eau and euh bo xolé na gestion de l'eau dafa am ben place bu am importance si biir euh, SAED liguey SAED euh, que ce soit ci bir mission lettre de mission yi yëpp dafa am ben patch bo xamné dañ ko ci jagleel gestion de l'eau chaque année nak SAED dafa wara def lu ñu war wax lu ñuy bi bilan d'eau et d'énergie bilan d'eau et d'énergie nak ci bir station yi lañ koy défé euh, mais pour am élément yi nga xamné ñoy mëna alimenter rapport bi nga xamné ci si défé bilan d'eau et d'énergie bi nak dafa am ay fiches yo xamné mom lañuy placer ci station de pompage yi euh, fiches yooyu nag dañoo constater ci dernier temps yi que dafay am ay manquement lolu moo tax ba duñ ko mëna exploiter comme nim waré lolu loolu moo ñu né dañuy tok ak ñi nga xamné ñom ñoy remplir fiche yi ñu waxtaan ak ñom dal di xol ñom sen niveau fa la toll ku nekk ñu xol yan manquement mo am par rapport ak remplissage fiche yi nous devons nous rappeler les fichiers pour que nous devons les fichiers nous devons exploiter les fichiers que nous devons exploiter. Les fichiers sont beaucoup exploités par les mots. Sachant par exemple, nous devons consommer si nous devons par rapport à ce que nous devons consommer. Nous devons faire des fichiers gestion de l'eau, si quelqu'un a un gaspillage, nous euh, devons rectifier à temps.

amna ay jafé jafé yo xamné ñom ñu ngi koy dund wante ñi leen koy tek parfois moy ñi nga xamné ñom ah, ñoy ñoom ñooy seeni kilifa ñoom nam nag nañu ñu défaat ben sensibilisation seen kilifa yoyu, euh, pour que ñom aussi ku nekk ñu mëna la wax ce rôle ak sa responsabilité par rapport à la gestion de l'eau dans les stations de pompage defe naa ni aussi dégg nañ ko bu baax a baax incha bu fekkee ne defe nañu fichier bu nim ko wara a defee bu ñu rapport ba def restitution inshallah, incha allah dinañ station bu nekk. Nous avons mi yëpp ñi nga xam ñom ñëpp ñu wax leen buñ défé restitution bi ku ñu rappeler la rôle ak ses responsabilité pour que gestion de l'eau bi jaar au niveau des stations de pompage par la même occasion aussi ñi xalat mu di nag ay pexe yoo xamante ne dañ ko lal te mu jëm rek ci gën a ñoŋal nag nekkinu baykat yi ak it joxaat leen beneen taxawaay boo xamante ne dana tax nag jafe-jafe yu bari yu amoon ci wàllu mbay mi mëna wàññeeku ñoom nag ca seen kàddu baykat yi ñuy rafetlu taxawaay bi nga xamante ne sayet am na ko ci ñoom jaarale ko ci formation ministre yi ñëpp xool seen compétence bi parce que aussi boobu si ñu ngi màggee loolu weesoo tamit war nañu fexe ni indiwaat yeneen ay pompiste yokk ay pompiste ak ay xayma ñun suñu lay baax foofu nekk ñu ne leen ñu leen formé ñu jox ñu ko suñu benn ñu mën a encadré formé waat leen ba nga xam ne buñ fi jógee daañu ko ñoom dañu mën a des ci suñu ay classement liggéeyal askan bi. ñu mën a Pan lëkku li nga xam ne dafay sakkanal daf ci war a taxaw lu demal na kii ndox mi nga xamante ni moom lay utilisé ci tool yi naa yaakaar ni doon sagoon lépp li nga xam ne utilisé nañ ci tool yi dafay nekk lu loo xam ne dafay fay ci poos parce que béykat moom xam nga lu loo xam ne ndax mu génn wala tool nga mu leen mais bu fekkee ni mel ni tey organisé ko dana dana nekk loo xam ne dafay am njëriñ ci béykat bay tax na

se félicite de la de la, de la rencontre. Euh, tous les conseillers, les participants, les responsables de station qui ont répondu vraiment très favorablement, massivement à la formation. Euh, l'objectif de cette formation est de renforcer les capacités de ces complices-là sur une rembourse correct. des fils qui suivre les stations. Vous savez, les fils qui suivent les stations sont extrêmement importants dans la mesure où sont ceux qui nous permettent Efebrizi nan moun, fèdou. Koma, la iso, kou yon fay de gen. Ou sa yon gen, jous nan moun son fay, ki de kweza. Kou gen, semane, kou tan de gen, de do to fay de si, de ekspatasyon de si, de antre moun kou.